murit bi ngal la xew rawlul maa ngi lay waxati ku tax nga yéemaat sëriñ Tuuba ñaati murit bi ngi lay waxati ku tax nga yéemaat sëriñ Tuuba ak ñoñam ñaati du man di tey ci wax leen gaa yi mbokki jàkkaaruñ ci duñu seetaan di ànd ak seen site internet Istikhama TV ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara bu baax di leen ndokkeel di ñaanal baax Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi loolu ci ànd ak wér waaye noonu lañ ñaanal itam ki nga xam ne mooy borom ëtt bi ñu nekk tey di sëriñ Abdoul Khadir Ndiaye di xalifa sëriñ Darou Assane di ñaan yàlla dolli ko tawfiix baax a baax mbokk yi taxawaay bi am solo bi nga xam ne ñu nekk ci wàccaayu màggalu Darou Ndiaye di màggal gi nga xam ne moom lañu defal sëriñ Daaru Assane ak mboolem ak njabootam mu mel ni nag ren dañoo am taxawaay boo xam am solo boo xam ni daayira bi nga xam ni mooy jamaatu Ahibahil Cheikhoul Assane ak mboolem organisation màggal gi def jël ay bés yoo xamante ni dañ koy def di ko décentralisé di ko jëmale itam ci kër mbokki taalibe yi waaye itam di ko jëmale ci kilifa yi nga xam ni ñoo doon àndanteeg euh, sëriñ euh, ñoo doon àndanteeg sëriñ Daaru Assane jàmbaar la as gor la tey muslim jullit bu dëggal daarul asan njaay murit saadix la maa waxati yàllaa ko tànnal mu bëggug baax te bokk fu baax newoon fi cig baax ba dem cig baax dëggal maati rafet na jikko te tànnub juddu bokk fu rëy feeñul ci askan wu ñuy musloo ka xeebaate njare di maamam sëtub maam Demba Njaay njare la kañ xam ci ak baax ak i kiimaan yu jombaate maamam ya diine ngorey seen bàkku néegi cosaan lu jiitu Seex Bamba feeñ lislaam lañuy noote الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi leen di di jiital ci nuyoo bi ni ko kii taalibe bi faral Cheikh Mountakha yàgg ko fa te wéral ko Sëriñ Tuubaa gën koo yàgg itam Sëriñ Abdul Xaadir dafa wax ne yaa rabbi ij'al muriidi namaa bi iznika fa'alni wa sam ijmaa dëgëral ko yow sunu borom maa ngi lay ñaan daal di wóor ci mën a nekk ñu ànd nekk benn suñu dara sañ gépp ba li ñeneen ndax mooy tax ñu def ko ñu bëgg a defal sëriñ bi waaye mooy tax mu mel ne li nga xam ne bëggoon nañ ko leeral ne bis bi nga xam ne moo tax ñu daje fii tey ci kër sëriñ bi sëriñ kay nay de bokk ci coalition ak sëñ Mour Gueye Ndiaye mag ñi nga xam ne dañoo àndoon ak sëñ Pape Assane loolu nag yi nga xam ñoo àndoon ak bi waaye mag ñi nga xam ndax dafa mel ne suñu borom ci ni mu nekkee xakim. képp ku mu nar a liggéey loo dana dana la jox ay àndandoo ay saxaaba ñoo xam ne ñooy ànd ak yow dana jàpp ci liggéey boobu ca mbindam moo xamal ne am nañu jamono baax na ñu daal di ay saxaaba ay amandoom ñoo ko doon jàppale ba lislaam tax suñ ko waxee bi mu ñëwee mag ñi ñoo jaayante woon ak moom dégg nga di ko liggéey jàppale ko ci liggéey bi ba yoon wi àgg fi tey sëñ Darou Assane itam bokkoon ci jaayante woon ak sëñ Tuubaa ba yàlla dogal mu lakk ci ay ngërëm yu bare bare ba sëriñ bi wax ko mu mu yàlla ci soppi ah, ko nga xam ne moom la ko doxal nga xam ne li mu li mu li mu seexal li moom nga wax ne toll ci ñaar fukk ak benn kon loolu moo waral di fàttaliku mag ñooñu nga xam ne ñoo àndoon ak euh, sëriñ bi wax dëgg daaw ci lañ ko tàmbali woon tànnoon ñaari kilifa ñaari seex kon eh, nga xam ne ñoo fi nekk kilifa googa fàttaliku siñ dara asan ak àndoon ak àndoon ak ñaari eh, seen diggante waaw dañuy waat fii tey ci kër si seen seen seen kii jom ndax ngi tànn tànn ñaari kilifa ren bi ñu ko amee woon kàcce bëgg Bamba wajur sëñ Mor Magat foofu la ñu defee ñaareel bi mooy fii kër sëñ ñu ko xam sëñ Modou Gueye mag ña àndoon ak sëñ Galassane moo ko waral ngir ndaw yi ndaw yi ëllëg yi wala ndaw yi jamono man cee man cee jàngi ndax day feeñal day gën a ndax liggéeyu sëriñ bi la bi moo ko moo moo moo moo fa taal ndax ka ko fa taal ñu dajee fii ci pàkk ngir ngir fàttaliku jëmm jooju ñuy wax muy Serigne Modou Gueye Ndiop digganteem ak Serigne Dara loolu ay waajtaay la waajtaay la yoo xam ne ngir màggal gi ngir euh, ngir bàyyi loo xel taalibe yi ak sopp yi yëpp ñu xam ne am na bis buy ñëw waaj ko waaj waa wu yéeme wu sell woo xam ne nii euh, saa buñ ci àggee danañ xam ni ren ji kat gàccaaloon gàccaaloon kon loolu rek moo waral ñooñu ndax euh, bu ñu weesoo tey jii nii lépp incha allah am nañ beneen daje boo xam ne ci la taalibe yi yëpp yëpp ci kanamu kilifa yi nga xam ne moo fi boo fi dëgëral ko fas yéene joxe seen dégg nga ci kanamam ndax na ko sëriñ bi waxee woon koy musanna bi kat daal ci lañ fas yéene dajee ak sëriñ bi ci suba gi sax ci lañ wax mboolem yi nga xam ne ñoo nekk ci biir ci bitim réew ñu mën laa dajale la mu dajale woon ci addi jëm ca màggal gi mu indi ko su ko defee nga dajale ko waaye ba ngoon ci la bi di gën a tali bi saafonte ak ñoom ziar dénk leen ñaanal leen bu fa jógee itam ci lañ dugg nag directement kon ci fi la organisation bi tàmbali di di baas ak jumtukaay yi nga xam ne dañ koy soxla yëpp ci magal bi bu ñu demee ba set itam dañ fa organiser am mbale sa sa ndax kenn ku ne xam na ni barab bi ñuy defee magal bi li ci war a jiitu mooy set màggal si bu ñu fekk barab bi set ndax loolu dafa bokk ci ngëm bokk ci ngëm yàlla moo tax ñu set boobu ñu organisé ab bale boo xam ne mboolem ñu yëpp fexe yëpp évacué ko ba gan ñi fiy ñëw ñu ñëwee mën a dugg ci environnement bu mën a normal Euh, euh, bu ñu demee le 19 itam dañ ci organiser euh, am donation maye deret ndax loolu dafa dafa bokk ci liggéey bi maanaam ni ñuy dajee di ñaanal ñi nga xam ne ñooy jiite waaye ñun ñi fi desin waxtaan bi kenn ku nekk li mu war a yittewoo rawat na ci wàllu woowu nga xam ne Sëriñ Saliou Sëriñ Saliou da ci am soññee bu baax a baax Sëriñ Saliou dabaan dinaan wax ne bu ñu xamoon jaamu yàlla gi ci nekk maanaam ñetti weer yu ne ñetti weer yu da nga ko def loolu moo tax nag mbooloo sa saa buñ fuñ xamee ne lii mën mënees na cee dimbali nit wala mënees na dimbali dimbali mbokk taalibe ñoom dañuy taxaw ci loolu moo tax ñu organisé donc de saa boobu ngir fas yéene maye deret a buñ demee ci ngoon gi tam euh, seetaan suñu dara seen waxtaan wiñ daan amal euh, insha allah taala waxtu woowu lay am waxtu woowu lay am sëñ Mbacke Xamdul Rahman moom moo koy def mel na itam euh, thème bu am solo lañu lañu tànn boo xam ne kenn ku nekk yaakaar naa war naa bàyyi war na ko bàyyi xel bu baax a baax ngir fës ko yéene teewee ndax jàpp nañ ne ku ko teewee njariñ rek njariñ rek moo la ci la ci bu ko defee nag bu bis boobu jàll bu ñu nag bi suba ak màggal gi ci dañuy yendu nag njàngum alxuraan dégg nga njàngum xasida ci yëkkati ak durus ak euh, zikar ak euh, ba trois heures defee ñu euh, ginnaaw xew na fi ñu daal di dajaloo ngir bëgg fas yéene nag fàttaliwaat ñi nga xam ne ñoo màggal si ak mbokki taalibe yi maanaam eh, suñu Daaru ko war a jàppee ak taxawaay bi ñu war a am ci moom. foofu itam dafa am waxtaan am solo bu seen ah, mënee ko waxee ci waxtaan bi jëm jàmm bu ñu tànn boo ne dafa mel jamono ndax diin GIZ lañ a lañ ko lañ ko ci lañ ko tënk mooy diine ak politique waaw ni jamono jii ñi ngi dëgg a élection kon war nañ cee yee mbokki jullit war ci yee mbokk kenn ku nekk xam fi muy teg tànkam xam li ko war bu ko defee bañ caa def li ñuy wax israaf muy ëppal mooy xaabaabal ba saabu loola ñëwee def la war a def ñoo toog jàpp boppam ba lu yàlla dogal xam ko ci la sëriñ bi di ñaanal mboolem yeewu leen ci la a leeral ñu ngi ñaan yàlla fekkee loolu ko ci wa rahmatullahi masirin min rahunaati araqata yaa min ajli tasakkuri man huwa tasakkuruhu asli lbusharaati وإن رديت بقاه غير ساحته وإن رديت فاس من مصيباتي